ku ci nekk yaa ngi euh, ñaan barke macha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. très bien ah, mami waaw loolu mooy mooy damay seetlu tey jii mami wala mami damay mm. ma yóbbu ko tribunal gagné ko. mu mm-hmm. war maa fay. tribunal ni na ma fay. mais du ma fay. continuer dox a fekk continuer woo ko parce que xam nga déjà procédure dafay dafay jël temps. Mm. parce que mën nga ñëw mën na commencer par flagrant délit. parce que nit ñi peut-être duñ comprendre loolu flagrant délit nga ñëw tribunal bi condamné la condamné la peut deux ans avec AP deux ans ferme wala AP mooy délit boo xam ne dañ jàpp la mhm. la jàpp voilà voilà mhm. mooy bi nga xamante ne affaire yi nga xamante ne bu leer leer du jël temps jaar soxlawul instruction mm. parce que soxlawul mu jaaraat ci beneen juge pour bu continuer enquête bi mm. donc li nga xamante ne enquêteurs yi euh, euh, wolof bi nag baaxul noonu enquêteurs yi ñi nga ah, xamante ne euh, mm-hmm. gëstu nañ ko gëstu nañ mm-hmm. ko enqueter yi li ñu am moom lañu indi ci juge yi pour yow ñu mën laa atte donc loolu du jël temps suñ la placé sous mandat de dépôt benn jour lañ ci teg le lendement ñu jugé la Trump donc muy foofu su nekkee dañ la condamné yow prévenu yow ki nga xam ne moom lañ condamné tu peux faire appel loolu moo tax ngay dégg ñu naan appel soo defee appel tant que appel boobu jàllul mënu mënoo nga mënaguñ la fay. mënaguñ la fay mënagu mënagu day mel ni affaire bi dafa commencé waat. day roof galgal pour def appel. pour affaire day mel ni affaire nouvelle la day mel ni mosuñ ko jugé yeneen juge ñoo ñëw jugé waat affaire bi comme si day door a ñëw léegi boobu su jeexee aussi am nañ possibilité dem pourvoi en cassation. su nekkee dañuy rendre arrêt arrêt boo xam dafa confirmer kii bi euh, premier jugement bi yow aussi tu as aussi la possibilité dem pourvoi. ca kaw pourvoi en cassation. même après pouvoir bi mën nga def rabat d'arrêt rabat d'arrêt mooy boo xamante ne peut-être arrêt bi dafa am voilà dafa am ay erreur voilà dafa am erreur donc il faut ci jugement bi ñu régler erreur boobu donc loolu yëpp ay procédure la léegi nag soo boucler loolu nag ah yow tey mën nga ne waaw man juge bi condamné na kii mu fay ma lii yow contrainte par corps yow nga dem su nekkee suñ ko génnee su nekkee fayu la yow mën nga dem ak contrainte par corps boobu ñu duggalaat ko ci kaso bi ba mu fay mooy faaw faaw mu fay ñu soog ko bàyyi mu libre macha allah loolu tam dafay am mais loolu moom loolu yëpp il faut être procédurier vraiment parce que sinon <laughs> est-ce que tu auras les moyens de te payer un avocat boo xam ne dina mën a poursuivre dossier bi est-ce que yow toi seul tu peux le faire am na mm-hmm. du leen ko jaral est-ce que amul tamit eh, eh, benn eh, temps nañu beneen leeral rek bu ñuy indi ne boo gisee ñu bare sax bu ñu leen tàppaasee du ñu dem ca tribunal tribunaux yi tribunal itam euh, Euh, dañuy wax ne du ñu am avocat waaye ku ne salaamaaleykum ci ci ci baro ba rek am nga déjà avocat boo xam ni euh, défense la day taxaw jàppale la waaw mais loolu c'est si kaw crime la parce que voilà parce que su nekkee danga nga c'est des faits criminels comme dañ lay juger devant le euh, chambre criminelle mooy yi nga xamante ne reykatu nit yi ñi nga xam dañ leen accusé mhm. duñu waxagum dañ leen accusé dañu rey mhm. dañu def ay délit ay ay crime comme ay ay non pas viol viol délit kii la flagrant délit la mhm. mais ay agression ay ay ay rey ay crime assassinat yooyu ñoo ñu yow tu as le droit d'être assisté quel que soit le crime bi nga commettre tu as le droit d'être assisté loolu état sax mooy fay ki nga xamante ne moom moo lay. kooku droit wu doomu aadama la état da lay fayal koo xamante ne avocat boo xamante ne moom moo lay layool keroog bañ lay jugé en même temps am na ñoo xamante ne état da leen a jox kii. Euh, avocat ñoom aussi dañuy am avocat. loolu mooy problème bi am na ñoo xamante ne ay flag la amuñu peut-être amuñu moyen. fay euh, euh, avocat des fois avocat yi def bàyyi defal yàlla tamit jël ñëw dimbale. te nag bare na ci ñoom. waaw bàyyi defal yàlla mais bare na ci ñoom itam ah. il faut bare na ci avocat yoo xam ne dañ lekk sa xaalis ba pare du la taxaw seey. <coughs> seey carrément escroc y a des avocats de escroc ah, ah, ah. am na avocat yoo xam ne dañuy lekk sa xaalis ba pare du la taxaw. Mm-hmm. seetaan ba ñu tëj la te lekk sa qu'est-ce que tu veux dire par là man. avocat man nigal nigal maa ngi ñëw ci yow ma ma dalal ki ci ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Eva maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax a baax. maa ngi nuyu Ndoye Bane. ñu ngi lay ziar. <laughs> ak man. ak ngi lay fay. allo. Mm-hmm. allo. dama bëggoon juste euh, participer ci émission bi par rapport ak euh, thème bi. escroquerie. Ah euh, affaire bu mel noonu bu ma xaw a dund bu ndaw bi may jógee bi may bëgg Sénégal. ci yoonu yoonu maram bi xam nga ñu jël oto bi jaar ci yoonu suuf bi. Uh-huh. bi ma ñëwee ba ba ba frontière bi dafa am benn affaire bu mel noonu bu ma xam ni naroon na ma daal. Uh-huh. Euh, dégg pour wax juste douane yi ak comme ni ñu si ci tribunaux yi ak yëpp dañuy dafa am benn laxisme bu am en fait doo xam ñuy liggéey ci douane bi doo xam ñu que ñi dañuy ñëw di attaaya ba si yàgg ñu jël benn benn poste ñu ñoom moom la ñuy liggéey kenn xam en te ñoom duñ ko contrôler sax bi ma ñëwee waa ji laaj ma sama papier oto laaj ma ba ci yàgg mu ne mën naa ko def trois cent mille ma ne ko man nag joxum waa ma ne ko man saa yow ban ni nga am yow lan ngay liggéey. mais loolu rek pour vous dire loolu rek nar naa ci dem kaso parce que waaye bi mu déggee li ma koy wax parce que man je suis juriste donc xam naa bu baax ni liggéey bi du noonu. mais j' étais pas obligé leur dire en fait. j' étais pas obligé ma wax leen loolu loolu loolu taxu ba foofu. mais bi ma gisee may waxante ak waa ji ni ko man du jox sama këyit du ma la parce que xaw ma la xaw ma la ngay liggéey du ma mooy mhm. yow yaa la lan dañ la def ci kaso ma ràndi kon baax na mhm. mais euh, dafa am bu jàmm bi mu man sama soxla nasaraan la mais ñu ngi ko jël commencé teg ko madame ça va vous avez voyage et tout man mi nga xam ne Sénégalais laa woon maa ngi nekk ci warantaan waa ji ba waa ji nar maa dugal kaso ci loo nga xam ni xaw ma waa ndax yor na këyit xaw ma lan la dama bañ bañ ko jox sama këyit te j'avais raison parce que xaw ma ko solu tenue douanier solu dara mhm. mu man euh, nan lañ ko tuddee sax transitaire la hmm. ma ne ko waaw mais boobu benn profession la boo nga xam ni peut-être ah, euh, man xaw ma la bu ma la joxee samay këyit tey toog fii nii ñu di la laajte ñu ni kookan la ñu ni xaw ma ko man nan laay def mhm. voilà donc euh, c'était juste pour euh, témoigner un petit peu que ñu suñu administration war nañu organiser en fait. c'est vrai. loolu amul beneen dëkk booy dem ñëw ci tribunal wala nga dem ci benn service nit ko xam ne bokkul ci service bi taxaw ñemee am fit ni la man joxuma say këyit man fii laay liggéeyee amul fenn man mosuma ko gis fenn. c'est vrai. Sénégal rek rek rek rek laa ko gis. loolu nag dañu war a assainir service yi. ku fa liggéey nga xam ne kii fii lay liggéey ku fa liggéey nga xam ne kii liggéeyu fi waaw loolu dafa dafa baax ci dëkk boo dem am na fa waaw ñun li ñuy woote ci ay valeur ak yooyu yëpp jom euh, am am am kees am nangam nangam nangam yaakaar naa ne lañ ko war a gën a gisee mhm. te ñu taxaw doomu dëkk bi bu ñu ñëwee cër bi ñu jox nasaraan bi bu accès naan ko madame sonn nga madame ba voyage bi métti wu nangam ñu ñu koy defal ñun. Mhm. parce que bu ñu génnee keneen du ñu ko defal. suñu dëkk rek lañ ko yaakaare donc bu ñu joxul benn gëdd bi keneen ñu ko jox. c'est vrai. voilà di leen remercier bu baax a baax di leen féliciter di féliciter Grand Ndoye Bane aussi ku may suivre la. Mhm. ak mani euh, di leen wax ni jàpp leen ko foofu rek fi ngeen ko jàpp foofu la yàlla leen yàlla taxaw yàlla leen yàlla suturaal euh, ca kaw ca kanam quoi. jërëjëf <coughs> moo tax. Euh, <coughs> dal dafa baax. Mm-hmm. waaw buñ ne fur rek nga ni fur. Mm-hmm. dal dafa baax te lii muy wax lu lu fréquent la léegi. lu bare la waaw am nga sénégalais dañu ragal dañu ragal ci benn côté. Mm-hmm. léeg-léeg guddi gi nga dox taseeg benn waay dafa civilu. même su fekkee ne policier la wala gendarme la mais solu loo tëni amul dara lu ma wan ci yow que ne yow gendarme nga wala policier nga mhm. nga ne ma kar rek na ma taxawal ma taxaw nga ne ma sa pièce mhm. commencé di ma harceler wala di ma yuuxu wala di ma saaga wala bëgg ay gag man fenn fi mhm. mais duma la ko may dama lay laaj sa carte nga génne ko wan ma ko soo ma ko wanulee nag ñu jaayante ko maak yow foo bëgg ñu dem fa na nit ñi am fit tamit gaay gaay gaay yi ñu rawance bërki démb ca <laughs> jaaykatu café café Touba <laughs> ñu police ñu dem fekk ka doon jaay café di tàppe ay PV. fa nga koy fekk. c'est vrai donc mhm. ah bien ça. yooyu yeneen wax la jaruta wax sax ci télé. da jaayee ni mel ni Eva Sall dañuy commencé. gars yi dañ koy kaas naan xaw policiers yi sol yére bàyyi faa la yooyu man. Ah, a def. mais damaa kontaan ci parce que mhm. man def naa opération de. ak fois kii centrale. Mhm. mais noonu la guddi la. ça fait maintenant ay cinq léegi mais guddi en civil man nekke man maa nekkoon commissaire bi tu vois mhm. ñu ne kii mooy suñu commissaire tu vois <laughs> donc c' est des c' est des yoo xamante ne civil lañ mën a def pour a dugg ci yenn milieu mais nag safoon na sàpp nag ci gars ndax temps yooyu démantelé woon parce que ci la ñuy dugg pour mën a dugg ci mhm. yenn partiment yi sinon duñ ko def duñ mën a am yenn yi mënuñ def sax xam nga tenue soo ko solee nit ñi dinañ daw surtout guddi da def civil su ko defee c'est que fii ma fa taxawoon mooy. ni mu amee ay journalistes yi def na ko tudd noonu am ay journalistes yu baax. Mm-hmm. noonu la demee ay avocats yu baax. ak ay avocat yoo xam ni. yu doy waar su noonu yu doy waar. Mm-hmm. man mii am na ci ñoo xam ne daan naa ci wax ak ñoom da gis benn nit boo xam ne dafa accidenté ñu war koo fay wala mu am ñuy toog miraas ñu war a fay miraas mi ñu porté plainte affaire bi dem tribunal ñu wut avocat avocat bu jël dossier bi di ko topp di ko topp ba mu sotti ba xaalis génn ña war a jot xaalis boobu pour ñu jot seen xaalis problème la. ñooñu am na ñoo xam ne duñ demee ba jaaxle ba ñëw ci rajo jox ma numéro avocat ma dem fa. Hmm? man maa ci di wàcc ba ñooñu jot seen xaalis may wax ni ci télé laa nekk di ko wax. xam nga donc loolu da ngay gis koo xam ne ñoo xam ne escroc ñu mi ci presse bi. Hmm. mi ngi ci ci ci ci ci ci avocat yi. foo koor boo mënti dem. Hmm. noonu la amee ay xam nañ nag ay avocat yu baax yoo xam ni. dañuy perte sax dañuy ñëw taxawu la carrément ba nga gagné. te procès jël am ca la nga am ñu may la loolu bari bari na fi trop. mais dama léegi bërki dem dafa am benn femme boo xam ne ndeysaan bitim réew la nekk nee na mun doy baan damaa fobeere ba sama woxo yee waw ndeysaan fobeere lay liggéeyee ak baleeg fobeere di dajale yónnee sama famille pour ñu jëndal ma kër ñu jënd terrain ma laaj leen tabax ñu may yónnee ñuy tabax ba pare ñu for fa benn kër bu rafet ni ma kër gaa ngi ni ma ñëw nag te tàggoo ñu yóbbu ma ci benn kër ba ma demee ñu ne dañoo luwee kër gi ma dem fekk ñu tëdd ma soo bëgg a ma yeewul sama bopp dem fa daje boroom kër gi boroom kër gi ni ma ah, fii sama kër la de te jaayu ko kenn ndaw sa choqué wu choc goo xam ni takkaat ay bagaasam mm-hmm. wowul xool waxul papa wow na. Mm-hmm. waxul yaay wow na waxul cousin waxul nijaay. am na ñuy ñibbi te ay bagaasam la takk. Mm-hmm. ca ñibbi te ni wan ginnaaw senegal pour toujours nee na su deewee sax sant yàlla comme xelam demul mm. nee na ma su deewee. Mm-hmm. buñ ko suul Sénégal. Mm. ginnaaw sa yaay ak sa papa ñoo la mën a def lii. Mm. doy na. Mm-hmm. te lii may wax ni Marie-Lise sénégalais yu koy dund kenn xamul nu mu toll. mais bëri na fi baax na am na koo xamante ne jarbaatam xam nga mag nga nekk mag nekk Europe di liggéey di amassé ay millions yu dul jeex. Mhm. dégg nga pour investir sa propre jarbaat nga am kii propre jarbaatam moo ko moo ko escroqué. lekk xaalis ba ba tey jii ma lay wax ba tey mënul jot ci xaalis boobu. te bare woon na. te bari woon na c'est des millions c'est des dizaines de millions. waaw. donc bëri na fi des fois sa mbokk bi nga gën a jege moom moo lay dóor. comme on dit dóor kat yi. waaw waaw terme <laughs> mooy terme bi dóor kat yi ñu ngi fépp. dëgg la te soo ko kaasee ñu ne war a ko kaas am na benn élément boo xam ne su paree woon ñu jox la ko ndaw si dim ki ma doon. très bien euh, boo waxee loolu sax damay saisir l'occasion dem ca régie ba ne Mia Ndour bienvenue toog toog lan la élément bi di wax. parce que sama rak bu ma bokkoon ndey ak baay. ma ñëw Sénégal yàlla dimbali ma ma am fi teraanga bi ma ñëwee ñi ma bokkal ndey ak baay ñëpp.